nañ jàngaat bu baax nañ amaat xam-xam bu baax nañ seetlu bu baax ci ne dañuy contrôler seen réew dañuy contrôler seen gouvernement tamit gouvernement contrôler mais suñ defut noonu dañ fi nekk di xuloo di xuloo di rayante politiciens yi war seen kaw di ñu ci pour dara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 عزة النفس الحرص على على الذات والحرص على دولتك فونكو سريو بق سريو خم سريو وفاية تدونكو فونكو فونكو يو خمني دينكو يدقى شي تيوري يك بوليتيسيان يك يويو نو بوليتيسيان يسفيه كون بق سين ريو بون خلي دون دم دون جن ريو مي دين فنان دين دين دين باي دين في تيه ها دين لين يون وخمني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

ومن دوما خليفه من خادم الامه لا اريد ان اكون خادما للامه تلولو باي مو كو نيانال <clears throat> لتر بما موجي بيند داف ما واخني آه، واسال الله تبارك وتعالى ان تكون نفعا للامه ان تكون نفعا للامه ها آه، دونك من خادم الامه لا واي دوما خليفه خليفه خليفه يجي نوص يجي من دوما خليفة من خليفة خادم الأمة موتاخ دوما أمة بي مانجي دوغن تيك نيوم مانجي جخصوك نيوم مانجي أندك نيوم يبوك يبوك سيتياشون يب ت تدفو موكو بور ني بغ ما ولا ني ناخ ما ولا ما ناخ لين اه اه داف موكو بور لولو داما كوي داف باسكو نيت دافا ورا مان نيت نيت دافا ورا ام كرامه نيت دافا ورا يكتيكو